cité ñoom Mame Mbaye Niang ak Abdoulaye Seydou Sow ak ki nga xam ne moo yoroon wàllum ndaw ñi di euh, kii euh, mu tudd ci sax Pape Malick Ndour démb gis nañu ki nga xam ne moo di maître Moussa Diop ex Dakar Dem Dikk mm-hmm. bi ñu ko tuddee ci rapport yi nga xamante ni fës na ni dafa am benn yorin gi nga xamante ni yor na ko ci li nga xamante ni moom lañ ko joxoon ci Dakar Dem Dikk loolu indi na ci ay tontu ni ki démb ci janoom ak taskatu xibaar yi ragg na daal li nga xam ne moo di deram te tamit am na nit ñoo xamante ni tudd na leen ni ñoom ñooñu am na lu ñu def ci biir dossier ba ku ci mel ni Barthélémy Dias tudd na ko ci ku ci mel ni Amadou Ba tudd na ko ci li nga xamante ni moo di scandale yooyu mu doon ay mbir yu doy waar yoo xam ni tu te la question est-ce que lii Sénégal la am. Mm-hmm. moo tax ma ne la président am na chantier. <laughs> vraiment euh, chantier yoo xam ne doo xam fooy commencé doo xam fooy jeexale euh, li ñu li ñu li ñu li ñu jaxase si réew mi moo bëri. moo bëri waaw jii il faut que ñu jël benn temps boo xam ne il faut que ñu reconstruire réew mi. Mm-hmm. si misaal da jàpp ne réew mi réew mi bu doon benn kër la daanaka dañ ko tojate moom fi ne da nga war a jëlaat temps. pour defaraat tabaxaat donc foofu la réew mi toll. Mm-hmm. Euh, tous ces scandales rapports yi la ñu génnee. et foofu la importance su décision bi président jëloo nee nañu ñu génne rapport yi. amee sens mooy. Euh, ba fi may wax ak yow nii kenn tegul loxo kenn. ku ne yaay génn di agité sa agité. kenn waxut kenn yaa. sàcc kenn waxut kenn yaa jël. mais rapport ya nga xam ne moom lañ defoon le président wax ne nañ ko génne. génne nañ ko. Mhm. Euh, am na ñoo xam ne épinglé nañ leen ci nañ jël rapport yooyu jël lépp lu ci war. dem yóbbu mhm. ko ci loxo yi yoon. muy Moussa Diop muy muy Barthélémy Dias ak muy Amadou Ba muy keneen ak keneen. nañu mhm. dem ci kanamu yoon ñu àtte ku ci nekk ñu leeral lépp loo xamante ne nii jox nañ la ko parce que man dama jàpp ne loolu mooy yoon. moom nee na liggéey bi euh, Cour de comptes def dafa war a xoolaat ndax la nga xam ne moom la génnee du looloo am. moom d'après moom information yi mu yoroon brandir ko démb ci kanamu taskatu xibaar yi jàpp na ni li nga xam ne moom la cour des comptes génnee du du du du résultat yu baax. léegi moom bu fekkee dafa am leneen. lu wute ak li cour des comptes génne. c'est c'est l'occasion mu génne ko ñu dem ci kanamu yoon comme li may wax xam nga euh, maanaam. rapport li muy génne rek nekkul que loolu kase si la ñuy sukkandiku mm-hmm. moom bu yoree des preuves yoo xam ne mën na prouver autre chose mm-hmm. et li ñuy wax si lanceur d'alerte yi am na info yoo xamante ne rapport génnewu ko tamit mi nga xam ne mën nañu indi ay leeral ci loolu y compris lui ak mm-hmm. preuve yi nga xam ne moom la yor li nga xam ne bëgg na ko ci wax mais ñu dem loolu yëpp ñu confronter ko devant la justice bu fekkee ne moom euh, tey jii ci kanamu yoon dañ koy seetal ñu seetal sérieux hmm. par rapport ak situation yooyu nga xam ne am na ci xaalisu réew mi ñu pasar pasaree mais actuellement imagine ak euh, endettement bi Sénégal nekk hmm. est-ce que mën nañu dem euh, di demaat di wutaat yeneen i bor yeneen i bor yu hmm. excessif di ko ci tegaat mënut a nekk. pendant ce temps suñu xaalis di circuler ci biir réew. mais mënut a nekk loolu c'est pas c'est pas possible donc. Euh, moo tax à fois nga gis ne euh, ñi ñi fi nekk dañoo gën a miser ci fiscalité. Mm-hmm. même ci euh, jotaay yi ñu jot amal ak FMI ak Banque mondiale le discours bi premier bi ministre bi yëkkati woon mooy ñoom maanaam suñu ay financement dañu bëgg rek. Mm-hmm. gën ko accès ci lu jëm ci sunu fiscalité. ak li nga xam ne moom mooy ressources naturelles yi nekk ci biir réew mi. parce que mm-hmm. loolu yàgg nañ ko jooytu mooy tey jii Sénégal. dama jàpp ne ressources yi nekk ci biir réew mi maanaam bu ñu ko jëfandikoo ni ñu ko jëfandi ni ko war a jëfandikoo. Hmm. mais dañu soxla sax di dem di lebi ji wala di. Euh, wuti ji xaalis feneen ak feneen. endettement boobu dafa lay gën a dugal ci situation boo xam ne bu gën a doy waar la tey jii weer bu nekk at bu nekk état du Sénégal ñaata lay génn di ko fay ci ay bor. Hmm. donc loolu c'est un problème boo xam ne dañ koy jànkoonteel et euh, nañu yóbbu lépp ci yoon. kuy seetal sa bopp jàppale seetal sa bopp c'est euh, médiatique bi am na solo mais li ñuy leeral dëggantaan ci kanamu yoon lañ koy leeralee dañu yóbbu lépp ci kanamu yoon ku si nekk li euh, maître Moussa Diop mën a génn ci ay preuve bu dee mu génne ko xam nga tey jii ñooñu mu tudd seen i tur xam nga génn ñoon i mm-hmm. tur mm-hmm. et buñ demee ba ku si nekk di am ñeneen ñoo xam dinañ tudd ñeneen ñu dem ci kanamu yoon foofu la lépp war a leere et puis ñu juger tey de manière sérieuse ku ci laale ñu xam ku ci laalawul ñu xam ku ci war a sanctionné sanctionné surtout xaalisu Sénégal bi nga xam ne war nañu ko génne kuñ ci wax mais c'est des qui sont là sunu xaalis mënoo koo jël par exemple yow nga sàcc sunu xaalis euh, par contre am nga fi kër guy jar temps de million saa waay ñu saisir sa kër. Hmm. foofu la ñu war a jëm mooy xaalis bi déjà la ñu soxla parce que wax naa la ne ñun lebi ji déjà mënuñu ko donc il nous faut su boo xamante ne ni euh, état ci la mën a sukkandiku pour mener ay activité politique am euh, ci ay activité wala ay réalisation am donc xaalis boobu réew bi soxla na ko. Hmm. actuellement la ñu war a <laughs> jooyanti ci domaine yu bari. si biir réew mi yaakaar naa ne war nañu mën a am taxawaay bu baax a baax a baax pour teg lépp si yoon euh, pour euh, ñu mën a am itam xaalis boo xam ne dina mën a permettre parce que tey man xeebuma tey benn benn milliard bu buñ ne diw mii kat mm. moom moo ko luubal saa benn milliard boobu lan mën na def lu bëri ci biir réew mi mm. bëri na lu ñuy lu ñu ñàkk ci biir réew mi par exemple euh, matériel lu jalis boobu. lu muy mm. jar par exemple. mais tey benn milliard bu bu waajooj noonu sàcc. Mm-hmm. mais ñaata machine lu la mënoon jënd ci biir réew mi. au moment où d' ñu ngi souffrir ci côté boobu. Mm-hmm. donc yaakaar naa képp ko yore centimu Sénégal dañ ko war a foqati defaat ko ci biir réew mi comme euh, diise le président jomaay euh, Euh, li ñëpp bokk ñëpp jot ci. foofu mhm. la ñu war a jëm xaalisu Sénégal bi nga xam ne ay nit dañ koo jël téye ko ñu jël ko delloo ko askan wi foofu la ñu war a jëm. Mhm. mais est que tamit sortie bi nga xam ne tey na ko euh, yaa ngi wax sànq ci ay preuves yi nga xam ne am na ko moom tey rapport dafa génn tudd ko est-ce que tamit setal bi du woon comme ni nga wax ci kanamu yoon mais pas di toog ci média peut-être di wax ni man defuma lii ñoom seen liggéey bi normalul parce que lii ak lii la woon bi may nekk Dakar dem dikk. maa daan fay euh, oto yi maa daan nangam donc mu doon loo xamante ni ñun ñu bëri dañuy jàpp ni euh, du woon place am en ci li nga mhm. xamante ne moo jëm ci ci yenn ci ay preuve parce que preuve yi dañ ko tuumaal. Mhm. ci li nga xam ne moo di rapport yi mais tey est-ce que bu leeral doon am dëgg la askan wi war nañu mën a xam. Mhm. mais est-ce que duñ ko njëkkee ci ñi nga xamante ne tey ñoo di yoon te génnee mbir mi daal di la ciy tudd. oui peut-être xam nga mbir bi fii la tàmbalee mooy génne nañu rapport bi. Mhm. Euh, peut-être bon mënoon na am patience su toog xaar. ba ñu mais aussi euh, bu fekkee jàpp ne tudd nañ ko wala waxal nañ ko loo xamante ni defu ko bon mën ci mais li li si ëpp solo mooy mbir mi ci kanamu yoon lay mujjee. Mhm. et loolu moo ci ëpp solo bu ñu demee ci kanamu yoon képp koo xam ne rapport tudd na la ñu wala entendre la xool li nga wax ndax yenu na maanaam am déet saytu li nga xamante ne déggoon nañ la ko ndax am na ay njuuj njaaj yu ci am am déet. loolu moo si mhm. ëpp solo euh, ña nga ca tudd itam man mbir mi moom jàpp naa ne jarut a yàqamti justice am na liggéey bu am solo boo xam ne war na ko ci mën a def. Mhm. et sénégalais léegi boo leen déglu dañ naan la bon ñun li li ñu intéressé c'est pas que diw tëj nañ ko prison wala diw jàpp nañ ko li ñu intéressé mooy xaalisu Sénégal bi nga xam ne ñenn détourné nañ ko. Mhm. ñu jëlaat ko dugalaat ko ci biir Sénégal loolu lañ gën a soxla li intéressé nit ñi nekkul diw tëj nañ ko prison wala diw mii kat euh, condamné nañ ko. Mhm. mais xaalisu Sénégal boo xam ne xoolal ñi la limal a gum ku ci nekk xoolal euh, si biir rapport bi. boo xaalis yu bari yooyu nga xam ne. waroon mais xoolal la ci génn ci xaalis. xaalis boobu rek boo ko dajale woon war ko def ci biir Sénégal mais loolu ça mën na régler problème yu bëri ci sénégalais yi te d'autant plus que Bamba Fall aussi ñu ngi koy tudd ci biir rapport bi nga xamante dafa mel ni daal rapport bi képp koo xamante ni tey jege woon nga euh, ki fi nekkoon di njiitu réew mi daanaka sa loxo setul benn yoon mm-hmm. non c'est des choses yoo en tout cas set na setut xam nga mbir mi jarut coow problème yu bëri yi jaru ko mbir mi daal nañu gaaw yóbbu ko ci kanamu yoon ñu lijjanti ko léegi. président nag dafa am lu mu waxoon mooy ña nga xam ne nii dafa am lu ñu jël bu ñu ñëwee mën ko jox ci joxe ci njekk ñu joxe ko ci njekk man de am naa yaakaar ne xëy na am na ñoo xam ne dem nañ ci suuf. yëkkati lañu la ñu yor. joxe ko ne ko ah président man kat lii laa ci comboot joxe naa ko man loolu sama xalaatu bopp. peut-être bu ñu ko waxul ci kaw man gëm naa ne loolu war naa mën a nekk. parce que am na certains yoo xam ne euh, peut am bu ñu xoolee ne mbir a yéeg dëgg wàcc ci justice. si rapport yi mm-hmm. génn épingle la la mu leneen la mënoo set. mënoo set donc li gën mooy li président jox comme solution mooy jëloon nga leneen la jël nga nga jël la nga xam ne nii jël nga ko te teguwul ci yoon. nga mm-hmm. yëkkati ko teg ko ci loo ko président euh, fa nga ko war a joxe. ah xaalis baa ngi nii lii laa ci jëloon nii la demee ak nii ak nii donc foofu la ñu war a jëm et puis euh, ces lanceurs d'alerte yooyu. Mhm. naa fi la war a entrer en jeu. parce que il y a des gens yoo xam ne ils ont été témoins ci lu bëri loo xam ne xew na ci biir réew mi. Mhm. moo xam ci yaa été dans Dakar dem dikk di fa liggéey am na loo xam ci lii. keneen ak keneen feneen fu leneen xew am na koo xam ne ma ngi di liggéey xam ne li xew. bon il y a des gens. autant mënuñu woon génn dénoncé wala amuñu woon fit bi. Mhm. Euh, parce que boo ko defee après ay problème ñoo la si mujj fekk. mais am nañ info yi loolu moo may rassurer un peu mooy lépp lu xew ci réew mi am na nit ñoo xam ne xam nañu de A naka la demee. Mm-hmm. et bis bu lijjanti jotee ces gens là ñooy taxaw ne la mbir mi nii la demee ak nii ak nii bëri na si ñoo xam ne xëy na yor nañ seen i preuve toog dëxëñ ñu toog di xaar. donc nañu yóbbu mbir mi ci kanamu yoon et qu'on règle definitivement ces problème là te bañ Sénégal bañ a duggati saa à dire loolu nañu na nekk page bu ñuy tëj mm-hmm. tëj. définitivement quoi ces problèmes la ay dénkoon nañ fi nit ki dóor na xaalis Sénégal ak fii amoon na ay malversation yooyu moom yaakaar naa ne. Mhm. dañu ko war a tegee nële. ñu jéem a dem de l'avant xoolal actuellement fi réew yu toll ñu jéem a yóbbu dem ci niveau boobu mais mhm. Sénégal bëgg dellu ginnaaw à chaque fois ku ñu fal sàcc na xaalis ak ñu réformer institution yi fexe ba tey ji corps de contrôle yi ma doon wax. ñu mën leen dooleel ba yooyu mën a wàññeeku mm-hmm. corruption ci biir réew mi ñu mën ko xeex bu baax a baax jàpp naa ne euh, bu ñu ko defee dina nekk loo xam ne dina gën pour Sénégal et puis loolu tamit du yomb d'autant plus que tey ñu ngi wax ci koppar yu bëre yooyu nga xamante ni luubal nañ ko ci biir réew mi te mu doon ñoo xamante ni tey ñu ngi woon ci nguur gi xam souffrance bi nga xam ne askan wi ñu ngi koy dund parfois on se pose la question est-ce que tey ñi fi nekkoon ñi ngi doon bàyyi xel askan wi ci jafe-jafe yi ñu nekk pendant ce temps lekk bi cher nit ñi mënatuñu dem mënatuñu dikk ndax transport bu metti mhm. des tiercé de personnes jël ay milliards Sénégal tëdd si no dafa doon loo xamante ne suñ la waxee nii ci réew mu pauvre comme Sénégal la xewee nga ni amul ah. pendant ce temps ki nga xam ne tey mooy ndeyu <laughs> mbile gi dem yoonam bàyyi fi lépp <laughs> waaw waaw loolu mënta ne moom yaakaar naa ne moom bu ñu bu ñuy traqué moom la war a njëkk a traqué quoi parce que <laughs> lépp lu fi am mais c'est zone yi ñu déclassifié décret boo ko déclassifié président moo ko moo ko signé moo ko signé ba pare lan la ci def est-ce que dafa déclassifier par décret parce que fii damaa bëgg ñu def fi lii wala dama bëgg ñu def fi logements sociaux. Hmm. wala loo xam ne euh, lu lu askanu yëpp di bokk la mais daf koy déclassifier daanaka bokk ak nit ñi dem yoonam. Hmm. est-ce que sax du président de la république moo doon defal ñenn kado mooy jël quelque part déclassifier ko bàyyi ko ak ay militants am ak ay nitam pour ñu def lañ fa lañ fa bëgg a def. Hmm. donc yooyu c'est des problèmes yoo xam ne euh, réew mi daf ko doon jànkonteel foog ñu tëj page boobee euh, tey jii le président de la république Macky Sall yaakaar naa ne euh, bëri na loo xam ne war nañu ko mën a corriger loo xam ne def na ko sous son magistère yaakaar naa si tànk yooyu le président Diomaye nekk. Mhm. que ce soit à Mbour que ce soit si littoral bi xool suñu littoral bi. ni ñu ko ni ñu ko jël def. Mhm. et loolu courage la laaj. dina bëri coow euh, ñiy wax dinañ génn wax ñi seen intérêt nekk dinañ génn wax mais dangay am courage def li nga xam a def. di joxe exemple bi Atepa doon joxe la dernière fois doon wax ne euh, au Maroc mais le roi yëkkati na lu toll ci 400 immeubles imagine ay immeubles xoolal immeubles yooyu ñaata xaalis lañ ca def. Hmm. ñaata nit peut-être ñoo doon liggéey bu fekkee am na ay entreprises yu fa nekkoon ak loolu mais dafa am décision yoo xam ne soo koy jël da ngay xam ne lii danga koy jël pour l'intérêt de la nation nga def ko. parce que tey mënuñu comprendre dans un pays et puis kañ bi mooy suñ la wanee après nii foofu di ak nañ ko defaree. et puis citoyen yi mën ci am accès ku bëgg a dem plage dem plage ku bëgg dem féexlu dem féexlu tey jii li ñëpp bokk ñëpp dañ cee war a am accès. Mm-hmm. mais pas ñu jël mbir yi privatiser ko léegi privatisation boobu mooy même ay terrain dafa am ñu ko war a am ak ñu ko warut am. Mm-hmm. et c'était comme ça dans ce pays. ces problèmes là il faut que ñu régle ko une bonne fois te yaakaar naa ne ak li ma gis nii si démarche bi jamaay mi ma gis démb mu taxaw jàkkaarloo waa ji nan ko terrain bi nu mu demee waa ji ko non lii yëg lii lii la mu koy poser ay nga xam ne kii. am na benn dévouement ci li nga xam ne moom lay mhm. def am na lu mu ci xam te bëgg na régler problème bi muy laaj waa ji ne ko ah, donc dañoo jox xaw ma ville de ville de Thiès tant de terrain alors que mhm. benn nit kese jox nañ ko lu toll ci tant de terrain. Mhm. nit kooku xam na kan la. xam na ko kay. c'est des problèmes loolu jarul sax coow li di bëri saa yi ngay ñëw ñu jël suñuy terrain delloowaat ko askan wi tranquillement jarul coow lu bëri problème mu xaalis yi aussi c'est comme ça qu'on les règle Euh, et puis problème yooyu jeex au Sénégal caxat caxatee suuf ak caxat caxatee xaalisu Sénégal nekk loo xam ne sunu ginnaaw lay nekk. Mm-hmm. Euh, tey ba tey ci ci ci problème yooyu la ñuy des ba tey ndaxte tamit euh, démb ci janoom ak taskatu xibaar yi ba tey moom maître musa Diop jàpp na ni daal ki nga xamante ni tey rapport yi nga xamante ni tey moom la ñu moom la ñu fësal dafa am beneen enquête boo xamante ni tey war nañ ko def. ci ci ci bile rapport ci jamono ya nga xam ne moom avant muy ñëw am na ku ko jiitu woon te dag am na scandale yoo xamante ne amoon na fa mhm. te boobu ba tey kenn waxu ci dara kon faw yooyu la scandale itam ñu dellu gën deltuwaat ginnaaw ci jamono yoo xam ne avant moom muy ñëw mhm. la question bi ñuy posé kay mooy que ni tey njiitu réew mi rapport yi mu wax mooy à de deux mille vingt et un. Euh, deux mille vingt et un non non. deux mille dix neuf jàpp deux mille vingt quatre deux deux mille vingt quatre. te moom su ma juumul deux mille vingt. mooy mooy se mooy second mandat bi quoi. waaw mhm. la ci li nga xam ne moo di euh, Dakar Dem Dikk parce que jàpp na ni. ñi nga xam ne tey ñoo ko fa jiitu woon anam yu doy waar lañ ko yore te moom ci xaalisu boppam la daan jël pour régler yenn situation c'est vrai que damay posé wu parfois yenn question yi je me dis suñuy régler ndax dañuy régler li am de 2012 waaw à 2024 wala da ngay remonter <laughs> sax loolu dina sori non parce que il y a tellement de choses yu xew ci biir réew mi mais par exemple ima non mais moo tax ñun ñun xoolal tey jii Euh, réédition des comptes bi président Macky Sall doon def en 2012. Hmm. am na si ñenn ñoo xam ne ils se sont pas inquiétés parce que ci saa si dañoo dem rejoindre le président Macky ñooñu euh, bu fekkoon ne dañoo jëloon xaalisu Sénégal léegi xaalis boobu mooy xaalis boobu raw na. ci xaw ma ay milliards na xaw ma ay lu mu mën a doon. Hmm. mooy loolu raw na. léegi ndax ñun euh, tey jii bu ñu demee ba war a jëm ci reddition des comptes dañ koy yemale si président Macky Sall li mu doxal de deux mille dix neuf à deux mille vingt quatre. Hmm. wala dem ba deux mille douze parce que am na yoo xam ne ba léegi mi ngi fi. mi ngi fi injustice moom damaa jàpp ne lu xewoon daaw ak lu xew ren ak lu xew daaw jéeg moo si am c'est des choses yoo xam ne il faut les régler am na ñoo xam ne peut-être jàpp nañ ne bon léegi nag euh, euh, raw nañu parce que lañ defoon yàgg na. par exemple ku détourné woon xaalis en 2012 wala en 2013 moom il se dit bon man moom raw naa parce que loolu ba ma koy def yàgg na. Mm-hmm. nañu remonté waat lépp nañu sulliwaat lépp parce que réew am na fu mu toll foo xam ne pour nga tabaxaat ko. par mm-hmm. exemple. problème foncier am na fa xam ne boo fa laalee da fa gis loo xamante ne scandale 2013 wala 2014 nga fay fekk. Mhm. am na zone yoo xamante ne ay 2015 lañ ko déclassifié wala 2014. parce que problème soo fii nii euh, par exemple bu ñu ci dellusee see euh, di nga gis problème yu bëri yoo xamante ne nii euh, noonu la demee bu yàgg la. la mm. xewoon nañu remonté waat ci lépp et qu'on règle ces problèmes là parce que réew. mais est-ce que tamit moomoo tey suñu bëggee remonté waat ci foofu d'autant plus que ñu ngi wax sànq ci urgence yi nga xam ni Sénégal am na ko bu ñu bëggee remonté waat non seulement on perd du temps. ci ci ci loolu. non mais on on perd pas du temps xam tax man ak yow togg gi ñu toog di def émission ni yàqu dara si liggéeyu président Diomaye. waaw de la même manière les acteurs de la justice seen liggéey noonu la. Mm-hmm. mooy indépendance de la justice bi ñuy wax. c'est-à-dire bu ñu ko bu ñu ko bu ñu ko bu ñu ko tegee ci yoon mooy est-ce xam nga ne président Diomaye mën na xëy ne fa mu nekk di régler la muy régler justice ba nekk dal di régler la muy régler te du yàq dara te li président di def mm-hmm. c'est comme si man ak yow ni xëy suba toog si suñu plateau di def suñu émission mais ñu bàyyi ñu ñu nekk si suñu liggéey le président Diomaye la nga xam ne moom mooy activité wu moom mu xëy nekk ci activité yooyee le ministre de la justice lay liggéeyee mu xëy nekk lu muy def <laughs> deful dara juge mooy liggéeyam. <laughs> donc munoo boo ko doon indil cent jugement par jour yàq ko dara si liggéeyam. <laughs> il faut que mu am indépendance de la justice et que ces problèmes là ñu mën ko régler bon euh, peut-être les gens peuvent voir de cette manière là euh, nañu tal liggéey. bàyyi parce que gis nañ ñu bëri commencé génn di agité wu euh, di wax ni ñu ngi leen fal. liggéey guñu sax tal di lijjanti ay xaalis boobu nag wax dëgg yàlla dañ koo soxla aussi ko soxla léegi le problème bi posé wu foofu mooy bu fekkee ne le président de la république moom mooy nekk à la fois le président ba pare nekkaa le juge wala du dugg ci biir justice bi di dogal lu ñu fay def ak lu ñu fa dul def mhm. comme li ñu doon gis euh, ñoo xam ne peut-être dañuy dugg dans des complots ñoo xam ne dañuy jël benn dossier politique daanaka téye ko ngooy ci bëgg ci am yenn résultats mhm. bu fekkee ne président de la dafay wóolu par exemple le ministre de la justice dénk ko euh, mu am nu mu doxalee ci biir justice ba teg lu bëri ci yoon ñu jël dossier jébal justice. Hmm. le président moom dem dellu ca soxlaay askan wa moom moment boobu muy nekk ci soxlaay askan wi ña nga xam ne ñoo nekk ci justice bi di régler ces problèmes là tranquillement hmm. réew noonu lay doxee président nekkul moom mooy nekk président. nekkaale justice nekkaale leneen ak leneen c'est pas pour rien qu'on de pouvoir exécutif am mm-hmm. pouvoir judiciaire bi ne la am législatif bi ku ci nekk lay sa rôle nga dem defi ji ko mm-hmm. te ku nekk boo defee sa rôle du yàq dara ci li président war a def donc justice mën na def liggéeyam topp la nga xam ne war na ko topp le président naa kaa donné instruction ne lii ak lii ak lii damaa bëgg ñu teg ko ci yoon. Mm-hmm. justice gérer loolu. léegi nag bu demee liggéeyi ba heure bu ko neex bu ñëwee ñu rendre ko compte ne ko ah def lii léegi li mën a yàq loolu mooy ñu am un président boo xam ne. moom au lieu mu concentré wu ci liy liggéeyam. Mhm. moom dafay bàyyi la mu war a def dem topp ji justice baak di xool nu mu tëjee nit ak di xool nu mu euh, jàppee yeneen comme yi doon gis. Euh, su Macky Sall. Mhm. donc loolu lañ loolu moom mooy euh, loolu mooy taxawaay bi mu war a am mais nag topp ay nit ci justice bu ñu nekkoon mhm. mille personnes par jour jàpp naa ne war warul yàq dara si liggéeyu président de la république. ci topp boobu nga xam ne sànq yaa ngi wax ne tey ñi nga xamante ne au delà de 2012. Mm. am na loo xamante ne defoon nañ ko mais. dañoo rëcc parce que dañoo cuub seen drapeau dem fekk ji njiitu réew mi Macky bi nga xam ne jamono jooju moo jël nguur gi. Mhm. est-ce que tey bu ñu bu ñu naroon def li nga xam ni moo di léegi Marieta léegi man pour man la question mooy <laughs> léegi imagine benn dix ans dix ans rek. benn dix ans mais ku sàccoon 2012 moom. raw dañ ko man dañ ko léegi kooku moom dañ ko ni parce que yàgg na. wala kooku dañoo war a xool la mu sàccoon ndax mi ngi fi ñu ñu foqante ko dugal ko ci biir réew mi est-ce que tamit document yaa ngi fa ba tey ah donc loolu yëpp loolu yëpp loolu yëpp pour man war nañ ci am taxawaay bu baax a baax et jàpp naa ne un état dara taw ko. lu mu bëgg a lijjanti da koy dem lijjanti ji. yow yaa yor appareil yëpp lépp fépp fu nit jënd suuf par exemple soo xoolee dem président Diomaye toog ñu indi ko cartographie. Mm-hmm. mais cartographie boobu ñu lay tiimal naan la terrain yaa ngi nii. lii sans la diw mi lañ ko jox lii temps la nii la demee lii temps la nii la demee. Mm-hmm. mais kooku dara ëmp ko pour mu lijjanti ko. donc il suffit juste. Euh, bëri na loo xam ne doon na xew au temps ñu ne ñu nit ñi jàpp ne mënut a nekk. alors que man dama jàpp ne lu si bëri manque de volonté politique lay doon à chaque fois mais président bu fekkee ne am na volonté politique pour régler. amul mm-hmm. dara lu ko tëj ci biir réew mi man laa jàpp. Mm-hmm. ah dina doy waar de parce que suñu bëggee remonter <laughs> ba fi nga xamante ne tey moo di avant. ah nañ ko def ndànk-ndànk rek bu ñu bu ñu bu ñu réglé. parce que dafa leer ni yenn ci ay dossiers yoo ne taal nañ ko yenn dossiers réer na yeneen dossiers moom waxatuñu lu si jëm parce que ñëw nga bokk ci man dafa mel ni tey Euh, ki nga xam ne moo fi nekkoon dafa doon valoriser sàcc yi parce que valoriser sàcc weesuwul nit ki sàcc mu leer ni la kii sàcc na mais dafa ñëw bokk ci yow parce que xam na ne yow yaa ko ci bokk nguur gi mooy mooy da ngay ñëw dangay dem dangay dem kaso wala nga ñëw moom ma ma jéggal la loolu moo fi amoon c'est le contraire ak ñi fi ne dangay indi xaalis bi ci anam loolu de laa gëm loolu laa gëm wala ñu xool nu ñu def ak yow te nag euh, maa ngi déggoon benn jour Abdou Mbow di wax ñii fi nekk nag di ñoom ñooy nangu transhumance yaakaaruma ni ñi sàcc alalu askan wi parce que démb c'est euh, les gens se la question tey maître Moussa xam nañ ni allié wu euh, Diomaye président la mais tey ak lu mbir mi mënti metti ñu yóbbu ko fee ñu enquête xam ne mbir mi moo ko def yaakaar naa du Ousmane Sonko wala njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye ñoo naan kii ci man la bokk. parce que kon su boobaa dañuy jaaraat ci même pas yi nga xamante ki fi nekkoon. te loolu moom musi te loolu yaakaaruma yaakaaruma dinañ delloo ci loolu ci biir réew mi parce que euh, gis nga askan wi sax taxawaay bi ñu am parce que tey ñun suñu yoon newul ci euh, kii Moussa Diop moom. ci coalition Diomaye la bokk wala lenn moo ñor askan wi mooy saa ki bokk APR bu laalu xaalisu Sénégal mun na dem ginnaawam ba ndànk mhm. foofu lañ toll ci biir réew mi ki nga xam ne nii amul dara luñ ko war a mën a toppee na dem ci jàmm mais képp koo xam ne nii laal na alalu Sénégal ak koo mën a doon yaakaaruma ne bon li may wax à chaque fois le président Diomaye dina apprendre lu bëri ci ay erreur président Macky Sall. Mhm. te erreur président Macky Sall daf cee bokk diw ci man la bokk kenn du ko topp ci yoon. ki topp si ki bokk sa biir parti bu defee toj toj na dem ci kanamu yoon ñu jugé ko bu jëree ñu tëj ko ñu tëj ko. Mhm. loolu dafay créer benn sentiment ci sénégalais mais su ëllëgee ki bokk si opposition bi Ousmane Sonko pour yow li tax sénégalais taxaw ne dee kenn du fi tëjee lan la. Mhm. mooy on voit quelqu'un boo xam ne dafa bokk APR ñu jàpp ko flagrant délit ci mbirum faux billet. dugul kaso. Mhm. ñëpp teg ci seen bët léegi par contre nga bëgg jël Ousmane Sonko sentiment boobu moom mooy révolté sénégalais yi et tey jii boo nekkee ci réew moo xamante ne nii ni ma ko waxee démb jox ko exemple buñ ne diw jarbaatu jomaay la saa waay mu jël 1000 francs wu Sénégal ñu teg ko ko war a teg mhm. su ëllëgee moom bu defee lu mu war a def dañ koy teg ci yoon kenn du taxaw di ko défendre parce que dañuy xam ne ci réewu justice lañ nekk mais bu fekkee ne réew mi soo bokkee par exemple comme euh, du temps du président Macky soo bokkee APR yow doo tooñ yow mhm. yow yaay ki baax mhm. yow musoo tooñ kenn même boo defee délit sax baax na ki nga xam ne moo nekk opposition lu mu yaru yaru yaru dañ koy jàpp tëj ko ci kaso bi parce que opposant la mhm. day créer benn sentiment d'injustice moom ku ma am ndey ku ma amul ndey lañ doon mhm. dund pendant tout ce temps euh, nga gis li fi xewoon da ngay toog au moment où Mame Mbaye Niang ne Ousmane Sonko euh, daf ma diffamé dama ko yóbbu ci kanamu yoon mhm. mais pendant sa temps là Mame Mbaye Niang mi ngi yëkkati kàddu yu ko neex de ay kàddu insulte yu ko neex di teg ci kaw Ousmane Sonko est-ce que Ousmane Sonko bu ko porté plainte dinañ ko woo du mujj fenn la preuve ana plainte yi Ousmane Sonko déposé woon. dara du mujj fenn parce que c'est un opposant ki bokk APR bu la pour bu la porter plainte nag nga am problème mooy injustice boobu nga xam ne moo fi yàgg am tey ji yaakaar naa ne leçon yooyu le président euh, Diomaye dina si jàngee bu baax a baax a baax a baax di ko Ousmane Sonko doon joxe exemple naan El Malick mii ngeen di gis nii bu jëloon dërëmu Sénégal ma tëj ko si kaso bi foofu lañ war a jëm. Hmm. loolu nit ki sax su ko xamee si yow dina ko pousser ba du du sañoo def yéen nii. Mm. mais nit ki bu la xoolee xam ne man président bi ma àndal nii suñ su ma def su ma jëlee xaalis Sénégal bii nii dara duma ci fekk mooy encouragé nga ko si mu def loolu donc bonne gouvernance la réew mi soxla njiit yoo xamante ne nii euh, au delà de ay liens wu bokk parti ay liens wu mbokk ak yeneen ak yeneen ñu xam ne intérêt Sénégal la ñu war a en avant. Mhm. képp koo xam ne nii euh, da luubal alalu Sénégal ak foo mën a bokk te yaakaar naa ne lii ñu dooree nii amul kenn ku nekk ministre euh, président Diomaye bu am xaalis bu am fit. même boo dëngoon sax doo am mhm. fit naan da jël xaalis Sénégal. parce daf lay leer ne man lii mhm. su ma ko defee du baax si man. donc foofu a Euh, ni ñu war a doxalee tey jii mu am méthode yu sérieux yoo xam ne ci la liggéey déjà bañ a nekk loo xamante ne dañuy toog rek ba.

Mm-hmm. moo xam ñi war a euh, di superviser seen liggéey à chaque fois ñu di ko def et loolu suñ ko defee rek dina wàññi lu bëri ci biir réew mi Euh, xeex corruption bi ak yu bëri yoo xam ne moom mooy gën a paralyser Sénégal bu ñu ko defee rek ak un peu d'effort des Sénégalais. mën nañ mm-hmm. egg atteindre benn niveau bi. ah espérons de parce que tamit quoi que l'on puisse gis nañu moom première ministre bi mu demee euh, nekk maire bu Ziguinchor am na ndogal yoo xamante ni jëloon nañ ko fa ñu ngi si doon wax ci ni mu ni képp koo xamante ni lekk nga xaalis boo xam ne bokkul euh, te moomoo ko di nga ko génnewaat loolu doon loo xamante ni yaakaar naa lu ko lu ko ñor la donc du nangu benn yoon. kenn ci ay allié wam nekkoon ci nguur gi fi nekkoon ñëw ñu tudd la ci dara ba pare mu lay protéger yaakaaruma ne loolu peut-être ñu bëri nag jàpp nañ ni est-ce que du looloo tax. Mhm. maître Moussa Diop dem rallier wu ci ci Diomaye président mais ak lu mu ci mënti doon épingler ne veut pas dire même même même si ralliement yi. Mhm. Euh, dafa amoon ay ay dafa amoon euh, yenn obligation yoo xam ne nit ki ñëw pour rallier mais le président daf ko doon wax mooy. Euh, képp koo xam ne tudd nañ la ci ay malversation wala mm-hmm. képp koo xam ne rapport épinglé nañ la du du du du ñu nangu ngay ñëw ci seen coalition mm-hmm. autant maître Moussa Diop wax dëgg yàlla kenn mosu koo tudd ci dara donc moo tax mu am mu mënoon am accès ci coalition bi mais jàpp naa ne mu ngi naan su fekkoon ña nga xam ne tey ñoo fi nekkoon am nañu lu toll nii ci ay preuve ci man. duñ ma bàyyee noonu. voilà donc loolu daal xam naa ne euh, après ñoom dinañ am occasion dem ci kanamu yoon ñi ci war a setal ñu setal leen ci. ñi nga xam ne nii dañoo def ñu teg leen ci yoon foofu daal la ñu war a jëm et <laughs> mbir mi daal man jàpp naa ne coow li warul bari. coow warul bari foncier la mm. littoral beeg feneen ak feneen. ni ko président defee démb am Mbour gëm naa ne noonu la koy continuer fépp fu si mm. nekk mu xam la fa xew xam nan la mbir yi demee lijjanti ko ba mu ne cocc li askan wi war a jot ñu delloo ko askan wi. te tey waxkat ñi nga xamante ne yëpp ñoo nekkoon ci nguur gi fi génn mooy ñi nga xam ne ñoom la ñu gënoon gis ñu mën wax. nekk di lijjanti doog ci plateau yi tey ñu ci bëri ñu ngi leen di tudd ci rapport yi te ñu ci bëri tey ñu ngi ne miig seen dox kenn génnul gis ñu ci kenn on se pose la question ñii fan lañ nekk est-ce ñu ngi ci réew mi tamit. Mm, fu ne daal xoolal justice moo yor dernier mot justice rek parce que ils se sont passé tellement de choses ci biir réew mi ñi ko doon def à un certain moment man dama jàpp ne ils se sont dit bon ñun on sera éternellement au pouvoir lu ñuy parce que am na loo xam ne soo dee pour man li ngay def booy sóor ne man président Macky Sall mii ma àndal bis dina ñëw dootu fi nekk am na loo xam doo ko sañ. mais peut ñoom jàppoon nañ ne c'est éternel. et puis Amadou est-ce que non même avant Amadou Ba à un moment ñoom jàppoon nañ ne le président day toog day imposer troisième candidature mais troisième candidature réew mu mu jàll mooy réew moomu kay kooku nekk dafa buur benn yoon. Mm-hmm. donc looloo nekkoon combat boobu looloo taxoon combat euh, contre troisième mandat essentiel le président dem na ba à un certain moment il s'est rendu compte que lii su ma si duggee dinaa si am ay problème te du ma si mën génn. Mhm. mu jël troisième candidature bi teg ko na le euh, plan Amadou Ba ñëw <laughs> la continuité. gis ngeen ni mu mujjee ñu dañoo soxla pendant douze ans ñu ñëw di souffrir ci douze ans yooyu ñu ngi ñuy sàcc. ci 12 ans yooyu Sénégal a ngi souffrir et ñun ñu bëgg continuer ci souffrance. man yow xanaa xam moom man pourcentage Amadou Ba dama fa jaaxal. non dafa jaaxal parce que je me dis man kii. <laughs> nan laa parce que euh, souffrance là cette souffrance injustice bi nekkoon ci biir réew mi. Sénégalais yi di ko mm-hmm. dund. nga ñëw taxaw ci seen kanam ne leen kat man sëñ bi soo leen ma falee. ci continuité laay continuer ak yéen. te ah, euh, injustice bi ngeen dund nii dafay continuer di am. ma xoolal xoolal xoolal pendant tout ce temps là doomu jàmbur yi ñu tëj kaso maanaam mm-hmm. yow. non mais xoolal ñaata yaay ñoo toog seen kër. Mhm. seen ay doom ñu tëj leen ci kaso bi ñaata famille lañ tëj seen ay doom ci kaso bi ci loo xam ne tegul fenn. Mhm. parce que le président dafa am un opposant politique bu mu bëgg a liquider kooku itam gën koo os taxaw ne ko du ma ma nangu ñu teg ma yenn yi. Mhm. mais xeex ba tàmbali euh, askan wi tamit gis ne kat dëgg fii la féete am ñu si taxaw di xeex. donc xeex boobu noonu xoolal ñi ci loru xoolal ñi ci ñàkk seen bakkan xoolal ñi ci tëj kaso ñi ci dagg seen ay cër yeneen ak yeneen yoo xam ne xew na ci mais pendant tout ce temps là loolu yëpp ñu teg ko sénégalais yi yow nga taxaw un am fitu taxaw ci kanam man dem man non dem je man kii su taxawee sama kanam di campagne la laa ko war a wax mais est-ce que nit am nga fitu taxaw jàkkaarloo am mën nga ne ma man dama ñëw pour def continuité. Mm-hmm. vu tous ces gens da ngay comprendre attitude nit ñi moo ñu doon wax troisième mandat président dafa war a lii. Mm. deuxième quinquennat sax lañ doon wax. deuxième quinquennat li ñu doon wax deuxième.